nangoon na ànd naag d'accord naag jaam yàlla yi nga xam ne fii bu yuutil adina allahu an turfaa wa yuftara fi asmum ana sëñ Bass Abdou Khadre léegi yàlla yi ñëw ñu leen dul ci yàlla di ko turu yàlla di ko sàbbaal ngir yàlla di ko def ci suñu nekk ak morom bu nekk suñu borom melal dañu leen di jël ñooñu dañuy aw daay leen aw gaa yi yaakaar ni jigéen ku mën a béy la luñ bépp ak jënd bu mën a nekk luñ ko jëndee mukk luñ ko mukk pour di yàlla. mais jaamu yàlla ba tey dañu def jaamu ci yàlla ci taxaw ak joxe am ñu ko xam ne dañoo war a def si boo ci xeet bi ak ñu ñëpp suñu borom nag xam nga ma santaane danaa leen ne def fay ne yajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaa'u bi ghayri hisaab mu ne ñooñu nga xam ne ñooñu ñoo koy wax suñu borom jàkk def ni ma ko santaane xëy na dañuy def loolu dañoo ragal yàlla bu ñu ragalee yàlla li leen sama borom bi fayee mooy gis pénc bi bu ñu ragal la ñu koy ragal lépp suñu borom da leen ko fekkal ba noppi nag wallaahu yàlla mu ngi saa di may di saa su ko defee Instagram la ñooñu wërsëg boo xam ne ndax ki ñuy calculer mooy koo xam ne dañuy joxe yàlla li muy joxe moo ko mën boppam moo tax kenn dina ñaata la kon taxawal julli ci biir réewu yàlla taxawal julli ci sa àll bi nga dem war loolu moo tax diggante jullit bi ak yëpp saa yu ko noppee taxawal lépp ko gën rek dañ koy jàpp koo xam ne dafa génn ci diine lislaam ba ba ñu tuuba bu gàttee mën na dem ba kon jumaa ji ñoo xam ne moom minute bu ne sëñ Touba policier bi xàmmeewu ko ne puusal rek mu puus bu doon keneen fi lay ne di